di xamal ñëpp ne programme bii ñu jël tey cent personnes lañ enrôlé fii incha allahu rabbi bala ñoo jóge fii ci taabal ji cent personnes yëpp danañ ko régulariser kenn ku nekk dinañ fayal nañ la trois mille cinq cent jëndal la carnet nga xam ne atum yàlla koseer yow sa wér-gu-yaram ñun gàddu nañ ko objectif bi mille deux cent personnes la chaque un mois ñu dem ci benn gox jël fa cent personnes ànd ko ak ñëfa fa dëkk koseer Touba ay ndawi président de la république lañ ñun liggéeyaluñ kenn ku président liggéey boobu ñu liggéeyal président suñu responsable yi ñoom lañ koy àndal. maa ngi gërëm bu baax docteur Dieng médecin chef lii yëpp bu amee grace à moom. ñi ñuy jox xam nañ ne liñ ñuy jox ci askan wi lañ koy delloo waaye ñoom engagement wu di organiser loo xam ne jëmaliwuñ ko suñu bopp. wallaay Nassim carnet yi ñu jënd benn carnet bu ne dix mille cinq cent la di trente trois carnet carnet bu ne def trois personnes. boo ko calculé mu romb mu jege quatre cent mille amul benn nit boo xam ne man xam naa ko ci ci ñu ñu enrôlé fii benn nit. waa COSER bi amul kenn ko ci xam benn nit waa ICP bi ak bàjjani gox yi toog ak association yi nekk ci carte bi ñoo sélectionné nit ñi te fii ak ñuy def suñu douze programme koñ bu ñu dem ña fa nekk la ñuy bàyyi ñu sélectionné ña nga xam ne ñoo ko gën a soxla yéen nag bénéficiaires yi liñ ci bëgg bu dewee déwénee am na ko wax léegi duñ leen jëlaat de. dañoo bëgg yéen ñu wan leen yoon ba ngeen xam njariñal seemi ba waxuma leen yeen ngeen xam njariñal seemi waaye ku leen gis xam lan mooy njariñal seemi ndax seemi dafa bokk ci programme phare yi nga xam ne président de la république dafa bokk ci ay politique am te bu fekkoon dem nañ ñoo ngi cinquante pour cent bu ñu demoon ba àgg soixante dix pour cent bépp sén dootu am problème u faju ndax bu dee mag ñi président jël na leen gratuite bu dee xale yi président jël na leen gratuite bu dee jigéen ñi wérad yi président jël na kon ñi nga xam ne nag ñoo liggéey seen bopp Nous avons la 3500 par nit avons Nous ñu faj la fait ça. Nous képp nous ça. Nous damay ragal ça. nous avons xamul rek Nous ci dul dem nous nous nous avons objectif fait nous rek bokku nous suñu liggéey kon Nous avons nous avons président de la république ndawi nous avons fait ça. Nous liñ doon wax nous avons fait ça. Nous Nous, ñun ci président nous ci moom la ñuy tàmbalee ci moom tamit la ñuy yem waaye ki nga xam ne mooy ndey mbili ki nga xam ne mooy ndey mbili moom bu doon laajaat mooy wax ne damay laaj bu dee bàyyi mooy wax ne damay bàyyi li mu wax leer na naññ te nit nag bu xasee wax wax dëgg yàlla tey waxul leneen lam waxoon rek ca la nit ñi war a jàpp responsable yëpp seeni Baye Fall lañ Baye Fall yi président lañ képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal président ñun sa Baye Fall lañ waaye képp koo xam ne nag na leer gis nañ ngay def lenn loo xam ne bokkut ak fa président jëm bala ngaa jàkkaarloo kenn ñu ndaw ñi ngay jàkkaarloo loolu il faut mu leer. di am mbégte nag ci teew fii ci seen kanam di leen xamal ne lii nga xam ne moom ngeen def am nañu cawarte bu rëy ci nekk seen biir ndax lii mooy li président la République bëgg kon yéen a ngi en droite ligne ci di doxal di fésal. li nga xamante ni bi moo di programme bi président bëgg te loolu mooy lim digle mooy li nga xam ne moom la bëggoo si ñu àndal ñëpp ñu nekk ci. ñun nag suñu taxawaay si fii ci parti bi ci biir Touba moo di tëdd njaaxaanaay boole nit ñi dajal leen jaboote ñëpp. lii mooy politique bu am njariñ politique du ay wax du ay xastante du ay saagante du ay waxante lu ñaaw waaye jëf ju rafet la jàppale sa askan la dimbale sa askan la. لولو موي تخ با جيب دي ميغا خاني ني بار ني نكوي جيب صاح نين ني بوليتيك لولو داج كون لي دا فاي يونو خا يونو ام رافيت و خا خني خال نين كو مورا كيب كو بوغ لو باخ وارتي دي جات نون نيغا خا ني نيو نيك في تي توبا يالا دوغول ني ام في اسوسياسيون بي نكو دنج كو تي اسوسياسيون جابي تي توبا وا كو جي دي اكوم تي مونتي دون سي ني ووي ñi ngi dépisté kuñ ci dépisté ba noppi bu ñu fi waxtaan nañu ak population bi xamal leen cosaanu jabet xamal leen signe yi nga xam dafa am xamal ni xeen nu ñu koy fàggandikoo am nañ fi ay cas yi nga xam dañ leen décelé la plupart du temps bu fekkee seet nañu xel ne seen sukkar dafa ëpp dañ leen di bindal bulletin de référence ñu yeboon doon hôpital Ndamaat ñu am mbégte lool ci lii nga xam ne conseil def na ko di ñaan yàlla nag saa ji suñu sañoon tous les deux mois ñu def ko bien vrai que y a d'autres associations qui font autre chose

ba nga xamante ne feebar dina waaj def na lolu ñuko defar ah, am nañ leen seen sant dañ leen di sant di leen gërëm bu baax. à part ça aujourd'hui dañ leen a convier rek hypertension waaye léeg-léeg sax ñu waxale yeneen feebar yoo xamanteni ñoo leen fi indi surtout bu fekkee si yeneen journée consultation yi si xale yi ndaw yi parental yi nga xamanteni ni sax état bi comme nii ngeen def. continué commencé woon na ko foofu jël leen si CMU bi di jël mag ñi si plan Sésame kon lii dafa ñëw rek dolliku si li nga xamante ni jot ngeen ko fee def ba pare te yooyu ay affection yoo xamante ay biir yu daw ay infection respiratoire yooyu dafa nekk yoo xamante ni daf see bëri maanaam feebaru xurfaan yi jàpp ko ne activité euh, PV bi daf see développé wu bu baax a baax a baax ndax it boo xoolee feebar yu bëri deltu nan ginnaaw te ñàkk yi nga xamante ni ñoo koy def si structure sanitaire yi nekk biir Touba yëpp loolu moom moo waral. jël ngeen en charge yi ñoo xamante ne ni tey yéene leen fayal pour ñu mën diiru at di faju te duñ fay dara.